li si bëri si participants yi dañuy mettitlu nañ leen di accueillir si hôpitaux yi moo tax groupe am di santé bëgg cee andi saafara bokk na ci gën a tàggat ndongo yi laata ñuy commencé liggéey. mais ay acteurs lañu mooy infirmier ak sage ndax ñoo gën a bari si hôpitaux yi si école yii la ñuy jógee dañuy xool contexte bi fu mu toll ñu gis ne lu ñu doon jàngale dañ ko war a gën a dëggal gën ko yokk gën ko gën ko gën si insister xëy na loolu dina waral gars yi gën a fagarlu si hôpitaux yi. étudiants yi di rafetlu bu baax xam-xam bu ñu leen di yokkal ci conférence bi ba noppi ne dañu ko doxal bu baax. déjà le fait nga ñëw rek nga reetaan nit ki day loo xamante ne ci accueil bi la bokk nga ñëw orienté nit ki même bu fekkee fajoo ko nga koy orienté même bu fekkee yaa koy fajoo si nga koy ree nga koy assuré boobu mooy première pas pour nit ki mun la wax lu mu feebaram exactement lan la parce que ku la ku la wóoluwul du la wax lu muy lu muy dund. du la wax feebaram donc accueil bi vraiment mooy fondement bi mooy loo xamante ni ñun ñëpp dañ ko war a maîtriser mooy képp doomu aaduna aadama quoi du infirmier kese du sage-femme kese. Ah, comme début bi fi ñu commencé ñu ngi doon wax ci wàllum accueil euh, mu doon li nga xam te ne moom moo moom mooy premier élément bi nga xam te ne. Euh, infirmier comme sage-femme ak képp ki nga xam te ne euh, aide-soignant ak képp nga xam ne ne mu ngi liggéey euh, ci hôpital war na mën a am euh, kii boobu na maîtrise boobu waa inf dañu doon wax daal ci accueil mu doon li nga xam ne dafa am importance. si gis-gisu seen directeur d'études dañu war a taxawal benn corps de métier ngir ñu faral di accueillir ñay dem si l'hôpital yi. damay créer comme ni ñuy créer corps de métier infirmier ñu créer corps de métier. Euh, service d'accueil boo xam ne dañ leen jàngal soo leen ay yére yu rafet yoo xam ne depuis hôpital la ñuy ñi ñu positionné leen ba pare mu am suivi ak évaluation liggéey nag dafa am dafa am dafa am dafa am dafa am euh, loo si bëgg ak loo si wut loo si gisul te neexu la da ko jël ay mesures sanctions positives ou négatives man loolu laay jàngate liggéey bi même bu ñu créé corps de métier tekk ba pare amul amul amul suivi amul évaluation amul sanction amul sens bu koy créé donc loolu dafa bokk si li nga xam ne war nañ ko mën def tey jii jàngat ka d'accord aujourd'hui y a des problèmes ñëpp a ngi wax mais dama jàpp ne problème yooyu li ko waral yëpp mooy peut-être am na problème de suivi et d'évaluation. malade yi ak ña ñuy àndal di ñaaw lu si bëri nañ leen di accueillir groupe am di bëgg loolu deñ ba tax na mu andi bile conférence.